nuyu nañ leen yéen mbokku internetu Dakaractu yi ñuy suivre en ce moment am mbégte bu baax a baax di jàkkaarloog yéen ci seen numéro entretien bu yees bi ñu siy dalal ki nga xamante ni tey jii nii dootuñ ko présenté du maître Ousmane Seye prétexte bi nag moom moo di libération Khalifa Ababacar Sall ak coow li nga xamante ni jamono ji juddu na si.

décision bi nga xamné mom moom la président de la république jël décret la mën nañ wax na donc grâce la parce que président de la république mom rek mom la constitution may sañ-sañ mu jël ndogal muy décret daal di bal nit ko xamné ne nañ ko ba àtte jeex lolou lañu tuddé grâce grâce boko gissé fondement bi moy lima la wax légui constitution dans son article 47 moo ne le président la république a le droit de faire grâce loolu rek la wax mooy président de la république am na sañ-sañ joxe grâce mooy baale kan la war a baal ki mu war a baal mooy koo xam ne dañ ko atte ba atte bi jeex boo xamee ne yoon pare na ci moom président de la république dafay am sañ-sañ nag moom baale ci saa yu ko neexee ak nam ko bëggee benn condition rek lañ ko wax mooy na atte bi jeex tribunal pare ci moom mhm. yoon ne ko bu tribunal pare ci ki ñuy àtte bu la neexee nga baal ko donc grâce pardon la mhm. baale baale la la baale boobu fondement bi mooy article 47 mooy pardon mooy baale bi mooy lan li nga xam ne da nga ko waroon tëdd ci kaso mhm. baal nañ la ko boo ci tëddoon bu fekk dañ la ko naan juróomi at nga tëdd ci ñaari at wala ñetti at mu dese la ñaari at wala ñetti at. Mhm. baal la ko doto ko tëdd. effet bi foofu rek la yem maanaam bu ñu la gracier ci li nga wara tudd kasso doto ko tudd foofu rek la yem sinon. Mhm. até bay la até won mhm. décision yi la até won yi la condamné won woon. da fay da fay da fay am. dañuy am sen effet. c'est-à-dire que la grâce ne remet pas en cause les décisions de justice qui ont été rendues. gracier la. du tere lañ la àtte woon jëf ja nga bañ àtte ci tëj la day am ba léegi daf lay topp bu fekkoon ne da ci yoro bor da ngay fay bor bi. Mhm. maanaam dommage intérêt ak amende. boo ko amee ci àtte lu gracier la da ngay ki nga ko yoreel saa yu la neexee da koy fay boo ko fayul sax mu delloowaat la kaso. Mhm. la kontaan donc grâce effet bi rek mooy. li nga waroon ba ñu tëj la ci ça demeure. kon bu ñu jëlee la kàdd xalifa sàll li ko dese woon mu tëdd ci at loolu rek lañ ko bal lool rek lañ lay bal lépp lu jëmoon sanction ci moom tem tey jii nii mu ngi en vigueur. loolu lépp loo xam ne sanction la. Mhm. muy bu fekkoon ne dafa tax nga perte. say droits civils et politiques. maanaam dootoo mun a wote kenn du la voteel mhm. buñ la gracier loolu day des. bu fekkee ne da nga yoral nit xaalis état bi xaalis wala nit buñ la gracier payor googu da nga koy fay. Mhm. ki nga ko yoreel saa yu ko neexee mu fayeeku la ko boo ko fayul mu yóbbaat la ci yoon. bu fekkoon ne la amandoon état bi saa yu ko neexee mu recouvrer amande bi. grâce li mën a mun a wax benn mhm. mooy li nga waroon tëdd ko tëdd. jeex na yoon daf ko def. ngir may ki nga xam ne mooy njiitu réew mi saa yu ko soobee comme ni mu ko waxee. Mhm. suivant sa volonté et son désir. Mhm. bu fekkee yoon pare na ci yow mu baal la. loolu leer na grâce baale la. Mhm. jeex na loolu na. baale li nga xam ne moom nga doon tëdd kaso. parce que loolu la ko yoon may. mais la nga yoreel nit moom. mënu la ko baal président mënu la ko parce que yoreel la ko. kon bu ñu jëlee kaw Khalifa Sall. Khalifa Sall mënatul présenter tuuti benn élection. ndéggam bu fekkee ne ci bi la Euh, dama dégg ay ñu jàng droit ay avocat lañ wala ay euh, professeur de droit wala chargé de cours. di wax mais yenn taay dafa am ñoo xam ne dañuy wax ci lu leen neex mais li ñuy wax duñ ko teg ci yoon ku jàng droit bu la waxatee dara. Mhm. laaj ko fan la ko teg. parce que droit comme arxuraan la. Mhm. xam nga yàlla day wàcc aaya. Mhm. arxuraan bu ñu waxee ñu ne ko foo ko teg ñu ne ci aaya tel ak sura tel. droit noonu la mel. ku la waxati ne dara am na ne ko foo ko teg ci ban article nga ko teg parce que dama dégg ñu wax de. Euh, juge rek moo mun a xañ nit mu bañ a wote wala kenn du ko woteel fan lañ ko teg ban code moo ko wax. amul benn article ban déet man kañ ñoom lay laaj ban article moo ko wax ak ban code moo ko wax amul ku ko ci wax da nga la neex juge muñ na xañ nit. bu mu wateeti te kenn du ko wateel moy mu ñak ses droits civils et politiques juge mu ngi dépendre ci pouvoir judiciaire mais administration législateur bi nga xamné mu ngi bokku ci pouvoir législatif nga xamné ne ñoo bokku bokk pouvoir dafa am code électoral bo xamné ñoko waté article 31 moné bu féké nit dañ ko atté tejj ko ci ay délits daal di cité délits yi muy bu la tëjee ci escroquerie détournement de deniers public. abus de confiance, vol, trafic de, de, de stupéfiants, mm-hmm. trafic d'influence. Délit yoyu nga xamné loi bi daf ko cité buñ la ci tejé lu dem ci benn weer ak lu ko ëpp sursis wala sans sursis mënatoo voté kenn to la voté loolu article L31 moo ko wax donc koo xam ne tëj nañ ko ne da nga def détournement de deniers publics wala da nga def escroquerie wala da nga def abus de confiance. Mm -hmm. wala da nga def trafic d'influence wala da nga def trafic de stupéfiant li jëme ci benn weer ba ci kaw avec sursis au sans sursis kuñ tëj loolu kenn du la woteele ti mënatoo woteel kenn sa giiru dund loolu leer la article L31 wax l daal di ne mhm. bu fekkee ne dañ la tëj ci leme ci weer wala six mois ca bokkul ci dili yooyu mu mhm. ci yeneen dili la mhm. di perte kenn dootu la woteel mënoo woteel tey bu dee kaw Khalifa Sall article lan lañ ne 31. 31 parce que moom lañ ko tëj pour détournement de deniers publics escroquerie portant sur le détournement de deniers publics dégg naa ñu jàng droit ne nañ. yu def confusion ci ñi nga xam defuñ délit yi nga xam ne la article 31 cité. mais article 32 dafa ne yeneen délit yoo xam ne bokkul ak délit yi article 31 cité boo ko defee kenn du la wateel doo wateel kenn mais ci giiru juróomi at c'est pas le cas de Khalifa Sall par exemple.

grâce du la setal. ci sanction yi ñu teg. leen la toppee woon bu tëj la ko grâce lu ko du ko setal la nga tëddoon kaso rek la lay la lay la lay la lay aar. doo ko tëdd mais du la setal ci jëf ja nga jëfoon. Mm-hmm. du la setal ci tëj bi ñu la tëj. du la setal ci li nga amee li ñu la la teg pour nga fay ko état wala nit setoo ci da nga koy dañ la ciy topp. Mm-hmm. grâce lim la mën a may rek mooy baal nañ la la nga tëddoon kaso dootoo ko tëdd. am na leneen lu ñuy wax amnistie. nee naa la grâce dañu lay baal baal la. te président pouvoir président rek moo ko mun. am na lu ñuy wax libération conditionnelle am na lu ñuy wax sursis am na lu ñuy wax probatoire yooyu aussi li ñuy wax ci français ci droit. Mm. cas d'aménagement de la peine la rek. mais kooku président du ko jël ministre de la justice mooy jël arrêté koo xam ne tëj nañ la nga tëdd moitié lañ la tëjoon bu fekkee ne sa comportement baax na ba administration pénitentiaire attesté ko ministre de la justice mun na jël arrêté daal di la defal libération conditionnelle comme grâce la rek mooy la nga waroon li desoon te da ngay tëdd dootoo ko tëdd ci mais condamnation bi day des li nga yoreel jàmbur day des kooku libération am na sursis juge mun na la àtte wala tëj ferme kaso mun na déet et naa tëj bi dama lay may sursis yooyu cas d'aménagement kooku juge bi moo koy def wala juge d'application de la peine aussi pour na ko def bu weesoo loolu. Mhm. li nga xam ne moo am pour setal nit. Mhm. ci àtte mooy réhabilitation wala amnistie. amnistie kan moo koy def. amnistie nag président de la république amul sañ-sañ. Mhm. mais am na initiative bi mais du ko jël assemblée nationale moo koy wote député yi nag ñoo ci ëpp sañ-sañ. ñoom mun nañ ko jël initiative bi mun nañ ko wote kooku dama ne la woon grâce pardon la. amnistie fàtte la. amnistie moom oubli la maanaam la nga jëf ja nga defoon mm. kenn du amnistie nit toujours ma wax ko jëf ya nga defoon moom nañ naan effacé nañ ko fàtte nañ ko amatul day verge dafay mel ni mosoo def dara bañ nañ ko bala mm-hmm. buñ la woteele yow droit d'amnistie la nga defoon bañ woteel la droit droit am yéen journaliste yi wala keneen ku ko fàttaliku mm-hmm. wax ko yoon da lay topp waratu kenn waratu ko wax kenn waratu ko fàttaliku dañ koy fàtte loolu mooy amnistie as amnistie fondement bi mooy fàtte mm-hmm. la nga defoon jëf la jëf lañu ñuy amnistie jëf ja nga defoon ba ñu tëj la ci fàtte nañ ko bu ko kenn waxati kenn amatul droit waxo ku ko wax ñu tëj la loolu mooy amnistie su ko defee mhm. la nga tëddoon kaso dootoo ko tëdd lañ la doon toppe pour dommage intérêt wala amende dootoo ko fay bu fekkoon ne da nga ñàkk say droit civil et politique dañ lay rétablir da nga koy amaat kooku mooy amnistie loolu mooy différence am. Mm-hmm. ak grâce. kon tey xalifa amnesty rek moom mooy tax ñu mën ko war a rétablir ci droit civil ak citoyen. xam nga nag man bëgguma di wax waxu nit. Mm-hmm. parce que man ay principe rek laay wax. absolument waaw li may wax nii bëgguma ko teg ci kaw ndoddu. Mm-hmm. nit ah vraiment man su may wax ay principe lay wax. li ma mën a wax daal mooy bu fekkee ne dañ la tëj ba nga ñàkk say droit civil et politique parce que jéeye yi nga def. article L31 daf ko moom daf daf ko prévoir. Mhm. dootoo wote kenn du la woteelati buñ la gracier du tere doo too wote kenn du la woteelati. Mhm. bu fekkee nag dañ la amnistie non seulement la nga waroon tëdd ci kaso doo too ko tëdd lañ la waroon topp ci ay dommages intérêts ak doo dootoo ko fay bu fekkoon ne aussi da nga def jëye yooyu article 31 daal di prévoir muy escroquerie muy abus de confiance muy trafic d'influence du trafic de de stupéfiants. Mm-hmm. dañ koy tégg ci sa ndodd Manam yow dal ko bes tak ngay doon la nga defoon ba ñu tëj la sax ken waratu ko fàttaliku mm-hmm. am nit la c'est effacé jeex na takk ku ko wax te yow buñ la amnistie woon ma dem ci radio wala télévision né ki kat defoon na fi géyee ni ni ni man yoon def may top. waratu ko wax Absolument. Alors, c'est vrai que le débat est personnalisé, mais il y a un cas qui s'est posé, c'est mon du prétexte, c'est entretien. Alors, ce que veux est-ce que avocat, par exemple, je suis comme avocat ben client, j'ai le droit euh, ñaan une faveur pour moi. alors que je plaide le ma ko nekkuma du sama client. avocat ndaw un mandataire Il dañ koy sas yónni ko. Mhm. defloo ko mu def. donc avocat client yam ki nga xam ne moom lay defaan moo am sañ-sañ ne ko defal ma lii mhm. mu def ko waxal ma lii mu wax ko défendre mu défendre ko mhm. mais avocat amul sañ-sañ dem di défendre koo xam ne jëlu ko du avocat yam kooku aussi mu ko yónni mhm. waaw avocat daal client lam la amal contrat client moo koy yónni moom lay àtte moom lay défendre avocat daal ak client am ñoo ànd mais koo xam ne nag doo du sa client amoo sañ-sañ wax ak moom amoo sañ-sañ ñaanal ko dara loolu la yoon wax ci kaw ñaan boobu ñu ko ñaanal yoon nangu ko client bi ci boppam ne man du ma génn ndaxte lii ñaanuma ko client bi am na sañ-sañ loolu en tant que détenu waaw am na sañ-sañ kañ bu ko neexee mu ne man man sama kii sama avocat man yoon yónniwu ma ko woon bon donc la mu ñaan man ñaana ñaanalu ma ko sama yoon nekku ci bu ko neexee mu wax. Mhm. waaw ci sa carrière avocat est-ce que cas bu mel nii mus nga ko dund wala mus nga ko gis. ah waaw am na fi avocat yoo xam ne def nañ fi ay jëf yoo xam ne seen client defalu leen ko waxulu leen ko am na ci ñoo xam ne seen client sax porté na leen plainte am na ñoo xam ne dem nañ congé de discipline ñu sanctionné leen. ah yéen ci seen yéen. waaw waaw waaw waaw mhm. parce que boo woree sa client askan bu dul yëg sax. boo booy défendre sa client. Mhm. nga war ko. Mhm. waxloo ko loo xam ne moom waxul nga waxal ko ko. dem def loo xam ne moom waxuloo nga def ko ko. client bi am na sañ sañ retourner contre yow porter la plainte parce que avocat boobu li mu def c'est contraire à ses règles professionnelles et sa déontologie. parce que ñun aussi dañu am sart bu ñu tënk. tout à fait dañu am règlement intérieur. am lu ñuy wax déontologie nu ñuy defee suñu liggéey. ci waruñ ko wacc boko ko suñ conseil de l'ordre ñun am dañ am suñ tribunalu bop am na sañ-sañ dal ci sa kaw kon dal avocat ci liggéeyam am na charte yo xamanteni ni genre garde fou la waru ko wacc avocat ay charte rek ko tenk damay dégg ji wax naan avocat bi fay wax lu ko neex avocat bi fenn euh man bi may nek avocat ndeysaan boobu sama mam mu ngi mu ngi dundu mo jur sama papa ci ndar bima ñëwé nako ah mam man kat dama bëgg nek avocat parce que admis concours bi et cetera mu ah kon yow ci nga xamne dañuy fenn ci nga bëgg bok ñu nga xamne seen métier moy fenn xam nga mag ñi non lañ jappé won affaire avocat c'est vrai man diko wax diko expliquer nak avocat au contraire comme li ma doon wax légui rek lo wax rek amna foko tek ko avocat normal lu mu wax war na ko teg ci décret war na teg ci loi war na teg ci jurisprudence war na ko teg ci doctrine mais lu du la neex wax parce que ki lay de di la àtte mooy juge li mu jàng moom nga jàng texte yi nga xam mom xam nako ko yow da nga ko bëgg fàttali texte ne ko ki li def texte bi la taxi bi la texte bi texte bi moko may sañ sañ sañ sañ sañ sañ sañ bii. Mhm. juge tax war nañ bu avocat di waxati ak bu len di bind normalement boy bind juge diko ñaan dara moy li wax ay requête ak yoyu mhm. mais dafa am foo koy dafa am fondement. donc lima lay ñaan ma ngi ko teg ci tel article et cetera boo ko deful juge ba mhm. dafa war a rejeter sa rek booy conclusion di def ay conclusion di di di di di atté di di di di plaider nit li ya. ngay wax lu ci bëri da nga koy firnde ci ay texte boo ko deful ci ay texte juge bi mun na ko bañ a atte parce que juge aussi yoon daf ko tënk ne ko loo atté da nga koy motiver da ngay wax li tax nga atté ko ca da ngay wax fi nga ko teg ci ban article nga ko tek ci mhm. ban code nga ko tek motax nga atté boko deful juge bobu boko deful mais atté bi dañ koy ni la kon kon kon loy tontu observateur yi naan euh, débat avocat daal mooy euh, la bouteille à moitié vide ak à moitié pleine ak yooyu xam nga débat entre nit ñoo xamné lu leen neex wax mhm. lool du débat débat gis nga droit c'est scientifique mhm. bañ nañ ko ba faculté dañ ko tuddé faculté des sciences juridiques droit du lu la neex wax droit ay sarte la loo ci wax am na foo ko teg yéen journaliste yi ku la waxati ne man professeur laa wala man avocat laa lu mu wax ci droit ne ko foo ko teg. Mhm. ci ban sàtt nga ko teg ban atti nga ko teg ban code nga ko teg sinon da wax loola neex ñëwee ne juge rek moo war a privé nit droit civil ak politique nañu wax ban sàtt moo ko wax ak ban article moo ko wax laaj leen ko ñu wax ko buñ ko waxul nga xam ne li ñuy wax lu dëgg. kep ku fi waxati mm-hmm. ci affaireu droit mu ngi melni ku kuy bi waré rek di war ci yalla ak ci alcorane mais nak wax fu ban surat la ko teg mm-hmm. ko tek mm-hmm. droit non la démé amul wax lu la neex ak wax li nga bëgg ak par parlo mën nga far faral nit mais buñ lay wax ci affaireu droit nga xamni ne la science la mais da ngay élever wu wax li nga xamni ne la sarti wax mom la yoon wax absolument boo ci défendre nag loo tax avocat am nga dem gëstu ji ba pare xam li ngay wax am na ñuy wax ci texte yoo xam ne liiruñu ko décret bii tey président Macky Sall di jël ne dafa gracier ay nit yu mel ne xalifa Sall ak ñoom am na ñoo xam ne lii liiruñu ko te ñu ngi ciy wax noon la réew mi tëddee. loolu créer confusion bi kon. mais yéen a ko def yéen ko leen gis talal ko seen micro du mu wax ngeen bàyyi du ngeen dem jàngi gëstu comme moom. yow bu fekkee ne journaliste nga dem da ngay interview avocat ci benn domaine yow da ngay dem jàngi foofu ba pare xam la ci yoon wax ba pare ñëw soog ko interviewé. Mm-hmm. su waxee loo xam ne loolu nga ne quoi ah, man kat jàng naa lii mais loolu wax wala yow li nga wax foo ko teg. waaw mm-hmm. ah, mais boo bàyyi wax doo teelal micro rek wax ji wax lu ko neex su ko defee dina nëmal nit ñi loolu aussi du yoon. absolument alors mais Ousmane Seye xam nañ ne le temps vous est un peu précieux rapidement une dernière question xam nañ ne euh, moment bi ñu lay jël yéen vous êtes euh, en pleine ci li nga xam ne moom moo di dialogue bi comment se porte le dialogue pour le moment far ngeen ci toll ah man dang occasion <laughs> vraiment je ma nga nga ñoo dialogue de la majorité de l'opposition des non non alignés mhm. euh, société civile administration ministère de l'intérieur muy Sénat euh, vraiment euh est bi nga xamné la

di société civile di non aligné mu na cédé fi ma toog ne ku ci nek tay Sénégal jëm kanam mo la itteel te man dama koy rafet di féliciter aussi commission cellulaire bi nga xamné ne général nya moko jité euh professeur Kanté man jangal nama université euh mu ngi ci ci la bok Mazid nya mu ngi ni ak un jeune professeur Sall Deysane ku xaray mhm. agrégé en droit très tôt ñom nga xamné ne opposition bi ñëpp ño and ci ñom seen maandu ñom aussi ni ñuy diriger débat yi fax deug yalla rafet nañ bayyi nit ñi wax lu leen neex mhm. ñu débat d'une manière démocratique d'une manière républicaine li nga xamni jubo nañ ci ñu teunk ko vraiment ñun di man bett na ma sax parce que man yag na mhm. bokku ci revue code électoral ak yu melni mhm. depuis presque à 1992 10 lu ñu def fi ci Sénégal ci affaire woote man ci la bokk bañ na ko ba onel la bokkoon mais li ma gis ren tey ñu koy def nii ci dialogue politique bi. ça ah man de yaa am naa yaakaar ci Sénégal ne sur le plan politique. Mhm. dinañ avancer. parce que tey sax ñu ngi doon wax ci affaire parti politique bi mais li nga xam ne moo ñu itteel mooy fexe ba parti politique yi di éduquer seen i seeni i seen i seen seen seen seen seen i di éduquer citoyen mhm. parce que loolu aussi charte bi nga xam ne mooy constitution moo ko may parti politique yi léegi teg leen ko obligation. Mhm. donc il faut ñu xool. naka la ñuy defee parti politique il faut parti politique ni ñuy doxee léegi il faut que ñu am beneen doxin. Mhm. doxin bu bees. parti politique dootu rek dajale ay nit tàccu extra ak yooyu. effectivement parti politique te léegi dafa am ñoo xam ne sax mun nañ bañ a daje. Mhm. ba pare di mobiliser. Mhm. par les réseaux sociaux. absolument donc mun nañ jàngal nit ñi parce que am na tey ñoo xam ne militant lañ ci ay parti politique xamuñ sax histoire u Sénégal. dañ foog ne Sénégal mu ngi commencé am en xamuñ idéologie xamuñ ci daara daara daara daara loolu du yoon. Mhm. it faut ñu xam programme yi parti xam parti bi lan parce que tey parti du rek ñu nga formé ko pour jël pouvoir mhm. dañ ne constitution bi article 4 dañ ko modifier ne parti effectivement pour participer pour jël pouvoir la mais aussi pour former citoyens yi la pour former militants yi loolu nag dafa rëy. il faut que nous en charge au niveau du dialogue nous avons koy de en charge C'est devons def ba nga parti am une doctrine, bu une mission Nous, bees ko assumer ñëpp politique pour dire que c'est réel, pour jëriñu certes mais pour dire que c'est la pour wax dul euh, ruse mhm. ak franchement politique il faut que nous soyons ko politique nous parlons politique c'est noble uh-huh. politique yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñun ñi jullit yi moo njëkk politique donc politique lu baax la uh-huh. yàlla sax bëgg nako mais dafa am ñukoy def ño xamné baxul lool nak il faut que ñu simple leen ci seen biir wala ñu changer leen pour que politique retrouve ses lettres de noblesse mais Ousmane Sey, ñu ngi lay gërëm ci disponibilité ci leeral yi également merci

di jox dig ci ak ñi nga comme koy d'ici là l'information continue sur la référence Dakaractu